salaamaaleykum sama gars yi leen ak jàmm ci soppi Farokh TV fii ñu ngi leen ñaan ngeen abonné wu bu leen fàtte bés cloche su notification bi ngeen ngeen mën a jot bépp vidéo boo xam dañ ko dugal fii ci biir réew mi ak bitim réew jërë ngeen jëf. yàlla yàlla yokku leeram te taas ñu si barkeem kii lañ wax ne mooy kii mooy borom géej gi mooy baaba mooy borom baaba Tenda moo demoon sa féeri ba euh, jógee Casamance bëgg a ñëw Daaru Salaam euh, ñëw bëgg a euh, alxames si ngoon ba sedd hajj ma bëgg ñëw Daaru Salaam borom féeri bi ne ko wàcc naa te dootu mu ñëwaat mu ne ko yóbbu ma yóbbu ma mu ne ko wàcc naa mu ñaan ko mu ñaan ko mu bañ sëñ mun boo waxee fam gi waaye fekk na yàlla mu ngi yàlla yàlla ko duy ay tëjliyaat ak ay kusoofaat ak ragal yàlla kenn xamul mu si xam ak poids bu mu si doon sëñ Muntaxa ñaan ñaan ñaan waajita sëñ taxaa mi xam ne tey booba yàlla dénk na ko ismullahi lësëm dénk ko muy borom jamono dénk ko mu wuutu baayam sëñ Muntaxa ak njàmbaaram nga sëñ mu ak dëggum nga sëñ mu Muntaxa ne safoor bi demal safoor bi na ah mu ne demal sëñ Muntaxa ne ko ñëwee ma nii mu ñëwee ko nii safoor bi li mu li mu dégg sëñ Muntaxa wax allahu yaa mulki ak malakoot yàlla mi nga xam ne mooy borom lépp mooy moo bind suuf bind asamaan yàlla moo xebal jibril ñu ñu xaral ko géej gi talalal ko ranra bi seigne muntaha jarfa pousser ba pousser ba jolli mu ñew dar salam ki ni mo ñeek nek khalifa bayam ki yobuna dar salam fu kay naaw lol mu tek ko ci loxom rakam khalifa cheikh mamadou basir mi nga xamne ndaw ñu bëgg nañ ko ndaw ñu bëgg nañ ko mag ñu bëgg nañ ko tege ci sariha tege ci haqqa mu jël kër gi momi tamit yobugo fu seri hessel jumaa yi hessel nek bayam hessel nek rakkam yi jigéen yi xeesal nekk soxnaay baayam yi kooku tamit dañuy ñaan yàlla mu yàgg fi lool te xam jàmm ñaan yàlla rakkam ji nga xam ne dafa sës si moom rëkk te rëkkul ko muy euh, euh, Cheikh Mamadou Habib yàgg fi lool te xam jàmm ak rakkam ji nga xam ne mooy borom kersa gi góor gi si ruq bi Cheikh Mamadou Mourtada Ndaw yàlla fi yàgg lool te xam jàmm nga xam ne ker gis nañ ko muy xutba fi nga xam ne moom tamit ragal yàlla moo si toog waaye borom kersa gi nga xam ne bàyyam noonu na taayir mi la taayir mi la meloo gaynde cébee la yore muy taayiru ndaw borom kaala gi yàlla na ak njaboot si rajo ma ndaw gi yëpp ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ñoom it le fa fa seen bàyyi tegoon seen tànk yi foofu leen teg seen tànk yi sariha ak xaqiqa loolu boo ko xoolee si doom yi da ko gis boo ko xoolee si sëdi da nga ko gis daaru salaam daal ku bëgg jàmm ñëwal daaru salaam ku bëgg sëriñ bu tegee si sariha ak xaqiqa ku bëgg sëriñ buy daagu si diggante jumaa ji ak seen ak këram نیول دار سلام کی سر راج مند و برم پاک بھی برم جمع آجی مو کن قم نے مو فیک کلائی سر مولو تورے پم نیک مو قمل کو یا اللہ قمل کو رسول اللہ جو کس ساکو مو ہم نیاری دک ہم نیاری جمع مو فیک کلائی باو ساکو پم نیک مو قمل کو یا اللہ قمل کو رسول اللہ ساکو نیاری دک اگ نیاری جمع راج مامود گاد مو قمل کو قمل کو یا اللہ قمل کو رسول اللہ ساکو دک راج اللہ حتب بزرا مو قمل کو یا اللہ کو رسول اللہ جو کائی دک sëñ moo sekk mu xamal ko yàlla xamal ko rasulaay sa ko ñaari dëkk alaaji abdu salaam guddeem mu xamal ko yàlla xamal ko rasulaay sa ko ñaari dëkk li mu yor si ay muqaddam kenn xamul ñu toll alaaji kambaay konte kër seet jëkku mu kër seet jëkku mu xamal ko yàlla xamal ko ibrahima jaañ kër seet jëkku mu xamal ko yàlla xamal ko rasulaay alaaji moussa ju fagaru mu xamal ko yàlla xamal ko rasulaay li mu yor si ay ay ay muqaddam àdduna kenn xamul tool toll moo doon wax ne sama jëmuju suuf xattanu su ñaar noonu ne gouverneur bu ndar li mu doon si nguur ak déegol gi man alaaji ma ndaw loolu laa doon si nguur yàlla gi mu ne su ma duggee sama biir néeg daal suma ñaar loxo yi nii lañ may waxee asalaamaaleykum asalaamaaleykum su ma toog ak yéen lay am jàmm kii moo tax kii dàq suñ suñ biir yi kii moo tax ñuy regg kii moo tax ñuy sol yére yu baax kii moo ñu xamal yàlla xamal ñu rasulaay sëñ ma ndaw daal kenn mënu koy fay ne ñaan ñaan yàlla mu yokk yi leeram tartaas ñu si barkeem alaaji moo ko alaaji Ndaw moo xamal yàlla xamal ko rasulullahi dégg teg ko Dakar mu samp ko fa mu nekk fa mu muqaddam bu mag moom dañ ñaan yàlla yàlla yokku leeram te taas ñu si bàkkeem sëñ ma ndaw daal kenn xamu nu mu doon kenn xamu suñu ko bàyyi xel nañ bàyyi xel njabootam gi nañ ko di fonk nañ ko teral teral njabootam gi teral alaaji ma ndaw nag mooy teral njabootam gi njabootam gi mooy doom yi ki si jiitu tey muy xalifa Cheikh Mamadou Basira ak ña see tegee ku ñu si topp mooy ay ay sët ay ay doom ak seen i doom seen i sët bu ñu leen teralee teral nañ yàlla teral nañ rasulullaay ñooy ay alquran ay xam-xam ñoo nekk si seen dënn bi te ñooñ ñoo fi huutu rasulullaay sallallahu alayhi wasallam nañ leen di teral nañ leen fonk di ñaan yàlla nag Euh, yàlla dafa jàmm di noyu góor gi nga xam ne tey fekk nañ ko si xabru suñu Muntaxa dëkk fan. Kapaay dafa mel ni nag moom Tamsir Gaye mu toog nii ku bëgg Daaru Salaam la. ku bëgg Daaru Salaam man mu ne Tamsir Gaye mu ne moom fii la xam de. 1968 laa commencé ñëw fii. mu ne 1968 la fi commencé ñëw moom Tamsir Gaye. na lu ma sama bàyyi wax tuuti. mu ne na lu ko bàyyi wax tuuti de. si mawlaaye Seydi El Hadj Omar Ndaw nee na Seydi El Hadj Ndaw mu ne nee na Seydi El Ndaw ah, ah, bi muy bàttale boppam mu ne bi muy bàttale boppam ma ah, tafsir xaali daawo tafsir xaali daawo mii bàyyi Seydi El Hadj Omar Ndaw bàyyi Seydi El Hadj Ndaw bi muy bàttale boppam El Hadj Omar Ndaw bi muy bàttale boppam Seydi El Hadj Omar Ndaw boobu fukkaat ak juróom-ñett la xam boobu fukkaat mu ne ko ndaw nga mu ne ko ndaw nga de ci saahir ci waaye sëñ Omar Ndaw ma nga yow si baatin ndax man lépp lu yàlla xam mu ne ndax lépp loo xam yàlla xam na ko am na lu ma ci am na lu ma si yàlla xamal man maa xaali daaw lépp lu ma xam te lépp lu ma xam xamal naa la yow sëñ Omar Ndaw xam nga loolu xam na xam-xam boo xam ne mu ne te yow sëñ Omar Ndaw xam nga xam kam boo xam ne xamalu ma la ko xamalu ma ko xamalu ma la ko yàlla la ko yàlla la ko xamal yow sëñ Omar Ndaw si coobare yàlla am sama sàmm nga nag. mu ne yow sëñ Omar Ndaw sama sàmm nga de. yaay sàmm suma ndey. yow sëñ Omar Ndaw sama caaw gi sama nag yaa koy sàmm de. waaye yaay sàmm ruuh yi. mu ne waaye yow sëñ Omar Ndaw yaay sàmm ruuh yi de. ëllëgit yaay sàmm ruuh yi jaam mu ne ëllëgit yow sëñ Omar Ndaw yaay sàmm ruuh yi jaam yi de. sëñ Omar Ndaw. mu ne sëñ Omar Ndaw. di sàmm. di sàmm ruuh yi nag. ci xàllam ndaama bi nag. sa xàllam ndaama bi laay la sàmmee nag baayam yi moom sëñ Omar Ndaw mu ne tëjee fa ak nijaayam mu ne ko gune mu ne ko gune foo dëkk yow sëñ Omar Ndaw fan nga dëkk yow Omar mu ne ko ndaama mu ne ko ndaama dëkk de mu ne ko kuy sa baay mu ne ko yow ku de sa ku de sa mu ne ko tafsir xaali daawo mu ne tek mu ne tekk ne tekk mu ne mu ne tekk ba mu ko boo demee ba mu yàgg mu ne ko soo demee su ma la yóbbandee sa baay da ko wax su ma la yóbbandee sa baay est-ce ko wax yow Omar na ko waawaaw mu ne ko boo demee ne sa baay mu ne ko boo demee na ko sa baay na la jàngaloo yow na la la jàngaloo te bum la sàmmalooti te bum la muy borom dëkk bi sëñ Omar Ndaw mu daal di jof mu daal di jof nag. bu daan jof nag bàyyi ma ngi ci gétt gi. mu ne sëñ Omar Ndaw bu daan jof nag bàyyi ma ngi ci gétt ga. mu ñëw tëri mu ne sëñ Omar Ndaw ñëw tëri. ba pare mu ne ko koo xomar. mu ne mu ne ko xomar. koo si seet ci àll bi. kan nga dajeeg si àll bi. mu ne ko kenn. mu ne ko kenn de. mu ne ko xam na koo tasee de mu ne ko xomar wax mi ki nga dajee rek xam na koo dajee de. mu ne ko tasee naa ak benn mag de fële. mu ne ko dajee naa ak benn mag de mu ne fële sa àll ba. mu ne ko lum la wax. mu ne ko lum la wax. mu ne ko dafa mën a dana la sa ba def kuy sa baay mu ne ko ku ne sa baay mu ne ko tafsir xaale wax mu ne ko su ma la yóbbantee da nga ko xam mu ne ko waaw sa baay mu ne ko boo demee ne sa baay nara la la jàngaloo te di la te di la sàmmloo mu ne ko waxul loolu de de waxul la lool de. mu ne waxul la lool de. caawa gii la la bëgg a tere. mu ne caawa gii la la bëgg a tere. waaye Omar. mu ne ko waaye Omar. toppal caawa gi rek. na nga topp caawa gi rek. caawa gii. mu ne ko caawa gii. ngay fóot xoli doomu aadama. yow Omar ndaw caawa gi la ci ngay fóotee xoli doomu aadama yi. tàbbaleen ci yàlla. mu ne tàbbaleen ci yàlla nag. bañ fa bayee ko. mu ne bañ fa bayee ko. li ma sama baay wax. mu ne ko li ko si li ko baayam wax moom. benn ngóobam bësi. mu ne benn ngóobam bësi. mu ñu doon góobal tafsir xaali daaw. mu ñu doon góobal tafsir xaali daaw. mu fekk leen te ngóob ma. mu fekk leen te ngóob ma. ne ko Omar. ne ko Omar. bu nit ñi wàccee. bu nu ñi wàccee. dama soxla. faa la soxla yow. nang ma xaar. nang ma xaar. ba nit ñi góobee ba wàcc. ba nit ñi góobee ba wàcc. mu ñaanal leen. mu ñaanal leen. Seydou a Mandaw dem ba si génn ak sonn. Seydou Hadj Mandaw dem ba si génn ak sonn. mu mel ni dafa am lu ko jam. mu mel ni dafa am lu ko jam. ne teggin ja. ndekte ak yeen jaar kersa ga xamne bayama ko fa taaj mo nit ñi bañ nit ñi xamne kile bayama ko taaj fim tok mu hegg suuf mu ne mu hegg suuf baye fekk ko mam haali fekk ko fa sa son nga nako xomar ne ko xomar bëssi bi ñuy goop bëssi bi ñuy goop yalla xamal na mané duma ci mu ne yalla xamal na mané duma lek ci bëssi bi yalla nak lepp lu mu la xamal yalla nak lepp lu mu la xamal nepp na la lu ko hop nepp na la lu ko hop xama tay la mu ne xawma tay la xawma subo la xawma subo la nak waye bëssi bi waaye ba si ma ci lekk. man maam xaali daaw du ma si lekk Omar. su ma fi bàyyee koo xëllëg. su ma fi bàyyee koo xëllëg man maam xaali. dénk naa la sama bopp. yow Omar Ndao dénk naa la sama bopp de. mu ngi toll si fukkaat ak juróom-ñett. mu ne booba sëñ Omar Ndao mu ngi toll ak juróom-ñett. am na magam bu ñu daan wax sëñ Baabu Sën. mu ne am na magam bu ñu daan wax sëñ Baabu Sën. waaye moom alaaji Omar Ndao la bàtteloon boppam. waaye moom alaaji maam xaali nag alaaji Omar ndaw la bàtteloon boppam nag moom. mu ne ko bàyyi. loolu nag bu ñu xeggee ca kër loolu nag bu ñu si kër ga. mu ngi koy bind. لو لو فنگو سیرے nit yalla ki nit yalla ki li betu ko li de betu ko mom xamna ku mbattale bopam xamna ku mbattale bopam kenn ku ne yakar na yow la kenn ku nek nak ci gaay yakar na yow la di reyel sa kala di reyel sa kala nak reyel sa grambu di reyel sa grambu bi yakar na mom yakar na yow la gor gi battale sa bop ñu defar gor mu ne ñu defar gor gi nak andi ko ci buntu jakka ji andi ko ci buntu jakka ji ku ne wax ben baat bi. ku nek wax ben baat bi nak baax mbaax xam xam xam alquran ragal yàlla ragal yàlla nangoo liggéey nangoo liggéey moom maali taalibe Cheikh na Amadu Tijaan taalibe Cheikh na Tijaan ya waaw ñëpp wax benn baat ñëpp wax benn baat bi bañ na xirim bañ na xirim sëñ Babou Sën moo doon mag ci seen Babou Sën moo doon mag ci seen biir ñoom njabootam gi ci njabootam gi mu ne ana Omar <coughs> Babou Sën ne ana Omar satu ne ana Omar ñu ne ana Omar ñu ne ana Omar ñu ne ana Omar mu nga toog ca gannaaw nit ña Omar moom mu nga toog sa gannaaw nit ñi. ak sabotoor bu gàtt. ak sabotoor bu gàtt nag. même bu mu ñëw mu ne ko ci kanam. mu ne Omar ñëw jóg na ko maa ngi mu ne ko sa kanam. sa kanam sa kanam. taxawel góor taxawel góor gi. taxaw sa kanam mbooloo mi ne Allahu taxaw sa kanam mbooloo mi ne Allahu akbar. taxawee góor taxawee góor gi maam Ali. mu ne ñu denc góor gi nag. nit ñi nag di ko cawti cawtee nag. nit ñi nag di cawti cawtee Omar. mbooloo mu toll nii. mbooloo mu toll nii. kilifa gu toll nii. kilifa gu toll nii. gune gu toll nii. gune gu toll nii. taxaw seen kanam. taxaw seen kanam. mu ne est-ce que dana jig gune gi. est-ce que kii dana ko jig. est-ce que kii dina ko jig. ñu ne ah. waaye ñu naan ah. gis-gis mag ñi am gis-gis. ñi mag ñi nga xam ne xam nañ basira. ñu naan ah. bootu bàyyi ma ko wax de. bootu bootu bàyyi ma ko ko wax de. kii kii. defut ko si sagoom de. defut ko si sagoom de ndax magama ko xoo. ndax magama ko xoo. na ko ñëwal na ko ñëwal. kon xam na fu ko teg. kon xam na fu mu wéeru moom. léegi nag bi loolu paasee. bi loolu paase nag. yaayam dégg coow li. yaayam dégg coow li. ne ko xomar. ne ko xomar. li nga def foo ko teg. li nga def foo ko teg. mu ne ko lan. mu ne ko lan. mu ne ko taxawee gi nga taxawee sa baay. taxawee gi nga taxawee sa baay yow. mu dem dugg néeg baayam. mu dugg néeg baayam. génne jawaariyul maani. génne jawaariyul maani. génne ca ngaru ga. génne sa ngaru ga. ne ko fii la ko sama baay bind. ne ko fii la ko sama baay bind. kon dara mu ne ko kon Omar dara du la ci fekk. fekk baayam def ko noonu. fekk baayam def noonu ko. su ma fi bàyyee ko. su fi bàyyee ko. su ma xalal yëpp. su ma xalal yëpp. na nga ko miraas miraas sariha. na nga ko miraas yow Omar miraasu sariha. bu si dara lënt. bu si dara lënt yow. su loolu noppee. mu ne su loolu noppee nag. nga dem jaamal. na nga laxasaayu dem jaamal. ndax euh, borom jaamal. ndax borom jaamal. sama wërëlam. wërëlam la. nga dem fa. nga dem fa làqu ji fa ab diir fay làqatu ji nag da nga fay làqu ji ab diir mu ne da fay làqu ab diir ba mu xeggee mu ne ba mu xeggee ba mu defee miraas ba pare mu defee miraas ba pare mu laxas mu laxas mu dem mu dem fa fekk euh, borom jaamal fa la fekk borom jaamal waaye ca noor boobu waaye ca noor boobu nag sa la borom jaamal génn génn àdduna ba mu ko ba mu xegsee mu nuyu ko mu ne gune foo dëkk mu ne ko gune fan nga dëkk yow mu ne mu ne ko man ndaama laa dëkk. mu ne ko kuy sa baay. mu ne ko ku da sa baay. mu ne ko tafsir xaali daaw. mu ne ko tafsir xaali daaw. mu ne ko eskay. mu ne ko eskay. daal di ko jox loxo. daal di ko jox loxo. mu ne ko sa baay de sama wóllare. mu ne ko sa baay de sama wóllare la. sa baay de sama wóllare. mu ne sa baay sama wóllare la de. sa baay de sama wóllare la. mu ne ko sa baay sama wóllare la de. dégg naa ak wàññeekum. dégg naa ak wàññeekum. waaye yaramu naqari. waaye yaramu naqari nag. moo ma fa teree yegg si. moo ma fa teree yegg si man. bon ma jaale la ko. bon ma jaale la ko yow. mu jaale ko ko. mu jaale ko ko. mu ne ko lu doon say tànk. mu ne ko yow lu doon sa tànk Omar. mu ne ko sama baay de mu noonu. moo bàyyi de moo noonu. wóolareem nga. wóolareem nga. naa fi laqusi naa fi dikk. ah. kër gi de neexut. kër gi de neexut de. ndox jafe na fi. ndox jafe fi. dund jafe fi. dund jafe fi. waaw. waaw. waaye xool len ma diw. waaye xool len ma diw. kenn ca taalibe kenn sa taalibe mu ñëw. mu ñëw. mu ne ko kii. mu sama wóolare la. baayam sama wóolare la. wóolare Seex na Ahmad Tijaan la. wóolare na Tijaan la tamit. baayam jox ma ko. baayam jox ma ko. Cheikh na Ahmad Tidiane jox ma ko. Cheikh Ahmad Tidiane jox ma ko. Seydina Mohamed jox ma ko. Seydina Mohamed jox ma ko. bëgguma nga xamale ko kenn. bëgguma nga xamale jàmm yu la kenn. seetal ko ci néeg ci daara ji. mu ne seetal si néeg bi si daara ji. néeg bu baax. néeg bu baax a baax. nga nekk fa nga nekk nga dalal ko fa. nga dalal ko fa. mu daal di génne lenn ci xaalis. mu daal di génne lenn ci xaalis. jox euh, sëñ bi. jox sëñ Omar. déedéet moom jox euh, borom jaamal. jox ko borom jaamal. génne dara ci guru. génne dara ci guru. jox ko. jox ko. daal dina ñokket. daal dina ñokket. dox dox nag ndoxam lu jekk li. jëm jëm jëm sa daara ja nag. borom ah, borom jaamal na ñokket. borom na ñokket. daal di ko jox ko kii. daal di xool ko nag. ne kii. ne Omar mii ma gis. xaju si gannaaw kenn. xaju si gannaaw kenn. nit yàlla pire ngi nii. mu ne Omar mii ma gis. nit yàlla pire ngi nii. dafa rek de. mu ne Omar mi le. ki rek. xam-xam. mii. hutut xam-xam hutut barke hutut barke fees na del mu ne Omar fees na del si xam-xam xoolaay fees na del si barke waaw ngoone ngune ay nag mu ne ngune Omar nag xoolaay ko si ngune xool ko si ngune waaye kenn magut waaye kenn magut Omar nekk fa mu ne Omar nekk fa nag jaamal sëriñ ah, fala taseek mu ne fala taseek ah, alay sëriñ Xuli Mawlaay Alaaji Sëriñ Xuli Ture alaaj sëriñ wuli moom bu tëddee alaaj sëriñ nag bu tëddee moom dañ koy wan jëmmi Seydi Alaaji Omar Ndaw alaaj dañ koy wan jëmmi Seydi Alaaji Omar Ndaw kii moo lay heggale sa borom ne ko kii jaam bii moo lay heggale sa borom demal nga seeti mu ne demal nga seeti jaam bi fu ne nag dem na mu ne fu dem na fa nag kaala ne ci Sénégal foo xam ne kaala nekk na fa ci Sénégal rek laxas na dem fa mu ne alaaj sëriñ laxas na dem fa mu ne su demee rek fanaan fa ay guddi rek bu fa fanaanee ay guddi mu ne yàlla xamal ko ne ko du fii de mu ne wër mu wër ba sonn nag mu ne ah, lii de yalla dafa mako won ci nelaw yàlla dafa ma ko wan si nelaw wa ya gana du suma wërsëg si àdduna de xaaral ma dem jaamal mu ne ko xaaral ma dem jamal fa am nor ma def fa am noor dem nak jema a sampi kër nak mu ne ba mu daagoo ba dem jamal mu ne fa la fekk góor gi tedd gii Mawlaaya Seydi Laaji Omar Ndaw Seydi El Hadji Omar Ndaw moom. mu ne Seydi El Ndaw moom. xam na ne jëmm ji man lay seet. xam na ne jëmm ji di ñëw nii man lay seet. waaye kii xamul ne kii lay seet. waaye kii nag moom xamul ne kii lay seet. benn bés mu jëli dars. mu ne benn bés nag Serigne Dame jëli darsu Omar. romb eh, jëli darsu sa ca ca ca daara ja. dër jëli darsu sa daara ja. romb Seydi El Hadji Ndaw. mu toog. Serigne Touré. sama Sëñ Ndaw ne ko Serigne Touré. na nga def ak bind bi. waaye na nga def ak bind bi yow. na lool. mu ne ko Omar bind bi xanaa jafe man si lool. man de bëgg naa mu ne ko Omar man de ku bëgg a xam lool laa. ah xam jafe na waaye Omar xam jafe na ma de. mu ne ko jege si ma. mu ne ko sëriñ jege si la Omar ma. jege si ma ma toppal la. Omar ne jege si ma ma toppal la. mu toppal ko. mu ne mu jege si nag Omar ndaw toppal sëriñ. mu toppal ko ñaari yoon mu ne ndaw toppal sëriñ ñaari yoon. mu dem. mu ne sëriñ dem. kon beneen yoon ba mu ne beneen yoon ba nag. mu ñëw ne ko Omar. mu ñëw ne ko Omar. mu ngi koy sàllalu de. mu ko. ndax xamagul ko. nag ma defal nag ma defaloon démb de. ma defal nag ma defaloon démb. ndax démb ma ko defalee de. ndax démb ba ma ko defalee. yomboon na ci man lool. yomboon na si man lool. mu ne ko jege mu jege si. mu jege si. mu topal ko mu dem mokal ko mu dem mokal ko ñettel yoon ma nak ñettel yoon bi nak ñewé ba xeesee ko luma juroom benn juróom bam ñewé ba sey juma do luma xeesee ko luma juroom benn meetar mu ne hey hey mu mu ne ya ne yàlla yalla yow ya mu ne nëbbu ma ngi do xol sa kala ya ma ngi la xol sa kala ya, ya. ndega ya. yow yaang ci ndonga ya. yi yow xam nga ndaw mi nak la ron set kera rek la jappante señ mu ne ko kera rek la jàppante señ bi nak saxal ko nak diko jox ganar bët bu set saxal ko nak diko jox ganar bët bu set ci daara ja sa daara di ko rootal di ko rootal di taxanal di ko taxanal di ko defal lépp di ko defal lépp ba benn bis ba benn bis weeru koor weeru koor mu toggal ko ganaar mu toggal ko ganaar ne xaaral ma noppalu fii ne ko xaaral ma noppalu fii tuuti ba mu jógee ba mu naanee ba pare ba mu naanee ba pare mu ne xaaral ma dallu ne ko xaaral ma dallu daal di yët sama sang bi reer bi dal di yët sama sang bi reer bi ba mu dalloo nag nelaw ba mu dalloo nag ba dégg ñu ne asalaatu xayru mi ne mu noomi mu mu ne he sama sang bi de du reer tey. sama sang de du reer tey. daal di xekk këll ba. daal di xàgg këll seeti këll ba. ñàkk sam ko doon toggee. ñàkk sam ko doon toggee. fekk fa yaxi kese. fekk fa yaxi kese. mu xegg suuf. mu xegg suuf. ne ku ma yebee lii. ne ku ma yebee nii. ci daara ji ci daara ji. xamut xamut. kenn yebul. kenn yebul ma bàyyi lekk. kenn yebul Seydou Alaaji. kenn yebul Omar mii Omar mii. ba xam ne lii moom laa koy defal. ba xam ñu xam ne moom laa koy defal. mu ñëw du ko lekk. mu ñëw du ko lekk. loolu kenn ñemewul. loolu kenn ñemewul ko. mu mu julli. def baaxiyaatam. def baaxiyaatam. saaliyaatam. saaliyaatam. dem di nuyu ji sëñ bi. dem di nuyu ji sëñ bi. ba mu yeggee jox ko ba mu yeggee jox ko mu ne ko bu ci bàkkaar de waay. mu ne ko bu ci bàkkaar de waay. xeex si na de waay. xeex si na de waay. xeex si na de waay. bu ci tuumaal kenn waay. mu ne na mu ne ko xeex si na de. mu daanu. mu daanu. waaw foofu la sëriñ Wulu daanu. foofu la sëriñ Wulu Touré daanu. fa la dajee borom Taïba Kër Jim. fa la dajee borom Taïba Kër Jim. ñoo bokk benn néeg. ñoo bokkoon benn néeg borom tayba kat jim borom tayba kat jim day fanane julli ba beuse day fanane julli ba beuse seydi la jamon ndaw mom seydi la jamon ndaw mom julle gehe bu julle gehe def nafilam def ay nafilam teud teud seydi borom tayba kat jim borom tayba kat jim di wax ci xelam di wax ci xelam nit yalla du melni de nan est ce que nit yalla dana melni le nit yalla ko xane bo reere bo reere nit yalla bo xamne bo reere bo bo ne bo julle gehe rek teud bo julle gehe rek teud nitu yalla du melni nii de nit ñoo mëna wax lu ñu xamut di wax rek di wax rek ci xelam ci xelam nak du làmmiñ de du làmmiñ de bis mëna ben bis Seydi la ma ndaw mu nar koo feeñu Seydi Laaji ndaw nar koy feñu nak dal di julli fajar mu dal di julli fajar wirde ba pare wirde ba pare dal di ko ges nal dal na ges Omar na ko tooma rek la ko daan ko ne ko toma mu ne ko labbe tooma mu ne ko labayka mu ne ko labayka mu ne ko tooma mu ne ko tooma mu ne ko labayka mu ne ko labayka ba muy ñetti yoon ba muy ñetti yoon mu ne ko xam nga nit la moo rawee morom mu ne ko xam nga nit lan lay rawee morom ka rakk yu bëri may ko ko de mu ne loola rakk yu bëri mayewut ko coobare yàlla coobare yàlla yàlla mooy seet ka ko soob mu ne yàllaay seet ka ko soob mu def ca la ko soob mu def ko la ca soob mu ne ko xam nga laylatul isra mu ne ko xam nga laylatul isra mu ne ko jàng naa ko de mu ne ko jàng naa ko de mu ne ko julli julli ga yonent bi julli woon baytul maqdis mu ne ko julli ga nga xam ne yonent bi julli woon na ko baytul maqdis képp ku ca bokkoon képp koo xam ne bokkoon nga sa julli googa waxtu faatatu la mu ne yow waxtu faatatu la man ca maamam ya laa bokkoon te man Omar Ndaw sa maamam ya laa bokkoon nag allahumma salli ala sayyidina allahumma salli ala sayyidina wa sallim allahumma salli ala sayyidina wa sallim góor gi macha allah liñ dégg neex nañu bég nañ ci kontaan nañ xam ne ne tegee na si xam-xam tege na ci eh, xaqiqa tege na ci lu bare bëri daal loo xam ne nii suñ njublu ak si xam nañ ci lu bare bëree bëri sa wax ji macha allah kontaan nañ si bëgg nañ biñ gisee ndaam gi taxaw nii rek naan nii bopp rek lañ xam ne kile eh, sëñ Oumar Ndao moom si niri sëñ Oumar Ndao yi la bokk yàlla yàlla yàggal fi loolu taxam jàmm si barke El Hadj Oumar Ndao. salaamaaleykum sama gars yi daleen ak jàmm ci Sope Farokh TV ñu leen ñaan ngeen abonné bu leen fàtte bés cloche su notification bi ngeen ngeen mën a jot bépp vidéo boo xam ne mi ak bitim réew jërë ngeen